waaw asalaamaaleykum euh, ñoo ngi nuyu patriote yëpp di siyaare képp koo xamante ne ñu ñaanal la mu fekk la ci jàmm comme nañ ko gisee étudiants yi euh, patriote yi nekk fële ca Pastef ICAT euh, te mën nañ ne seen vie mooy en danger loolu nag lu ko waral moom mooy benn complot boo xamante ne les autorités universitaires moo xam DG COUD université bi ñu naan ko Maguette Sène ànd ci ak nga xamante ne mooy Kabakuru nekk euh, chef de sécurité biir université Cheikh Anta Diop Dakar waaye tamit ñu ànd si ak ay étudiants vendus et corrompus ku mel ni Abdoulaye Cissé nekkoon fi fac droit ak Esteban Damsen mu fi nekkoon euh, président euh, faculté des lettres et sciences humaines ñoom ñoo jël benn complot ngir daal koy tegal bi nga xamante ne ñoom ñooy étudiants yi nekkee Pastef ICAT ngir daal di leen di mën a yóbbu fa nga xamante ne mooy prison. ni mu loolu fi ñu commencé nag moom mooy ñun ñëpp. dañuy fàttaliku mois de mars deux mille vingt et un ginnaaw manifestation yu yu yi nga xamante ne étudiants yi dañ cee amoon taxawaay bu am am solo euh, ci loolu ñu amoon ci ay blessures comme ñoom Ousmane Sonko junior ak ñeneen ak ñeneen bu président Ousmane Sonko ñëwoon université seet seet si blessé yi ba mu demee ñoom nag ñu amoon crise seen biir mu ne léegi waruñoo nangooti opposition bi di am doole fi nga xamante ne mooy biir université Cheikh Anta Diop Dakar ci loolu. ñu ngi fàttaliku euh, collectif des amicales wala ñenn ci collectif des amicales demoon def benn point de presse di attaqué Ousmane Sonko naan Ousmane Sonko amul droit dugg ci université bi te moment politicien bu nekk muy dugg te suñ fàttalikoo bu baax baax point de presse boobu noonu Stephen Dempsey noonu nga xamante ne c'est un corrompu et vendu moom moo ko jiite woon nga xamante ne moom ñu nekk loon génération bi mu àndaloon université ñëpp. ñëpp ñooy léegi nekk ci fonction publique ñu nekk ci fonction privée di dundal seen bopp mais moom nangu naa nanguwul loolu dafa bañ toog université di dundee si kaw étudiants yi ginnaaw loolu te boobu amoon nañ ay information ay information yu wóor que ne dañ leen a joxoon ay millions ñenn si ñoom nag ñenn ci collectif des amicales ñenn si ñoom ñu jox leen ay millions ngir ñu dem attaquer Ousmane Sonko même soo leen bëggee si YouTube bi ngir bind ko di ngeen gis point de presse boobu noonu te moment boobu 2021 la moom nee woon na bokkul ci benn parti parti politique ñu ne moom il est apolitique man suñu fàttali ko daaw 2021 bii nii nii nii demoon na benn benn benn émission ne moom il est apolitique bokkul ci benn parti loolu mu nekkoon ay fen ak ak i nar kese même si jamono jooju noonu la sécurité kuddu sécurité si jëmu bopp seen jëmu bopp ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor sécurité bi daal di génn woon ay jaas yu bees. woo seen i seen i journalistes yi ñu xamante ne ay journalistes yu yu corrompus comme ñoom ñu filmé ñu ne waaw jaas yi nii ñu ngi koy jëlee si néegu étudiants yi nga xamante ne ñoo bu faree Pastef te fekk fenn mënuñu weesu loolu parce que Pastef ICAT mosu ñoo am chambre foofu noonu bu université euh, jamono jooju ñu koy wax loolu ay nar weesuwul loolu ñu jógee si ñu xam ne seen i plan yàgg naa échec bii nag ki nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy ñu ne ko Kabakuru mu jiite euh, sécurité kuddu moom dafa ginnaaw manifestation yu mujj yi la vingt neuf ak yooyu dafa yëg ne poste poste bi mu yor dañ koo menacé mën nañ koo dàq ci loolu mu ànd ak ay étudiants yoo xamante ne Abdoulaye Cissé ñoom si lañ bokk ñoom ñooñu ñu dem génne ay euh, cocktail molotov mais étudiant Pastef ikaat yi dañ doon waajal ngir daal di taaj université loolu fan gënu koo rëy même gis nañ euh, Esteban Damsel nga xamante ne nekkoon na fi président faculté des lettres et sciences humaines mu nekk koo nit koo xamante nit ku yées na biir université mu posté woon que ne étudiants yi dañoo bëgg a taal université rey fa nit après yu kenn xamul di di wax yu kenn xamul ñu xam ne lu ñëpp ay caaxaan la léegi nag ci cocktail molotov yooyu noonu noonu ak ay euh, masque à gaz ginnaaw ba nga ko saisir saisiruñ ko. ñoom ñoo teg seen i plan parce que vidéo bi circulé na même soo leen duggee tey si Facebook beeg yooyu ba tapé euh, cocktail molotov ikaat di ngeen ko gis journal euh, di ngeen gis site yu bëri daal di koy titré ñun beneen ñoom seen jëmu bopp ñoo dem seen i cocktail molotov ak seen i pompe à daal di am fu ñu koy teg ñëw di filmer filmer ko ne étudiant Pastef ikaat ñoo ko doon waajal lan moo lay wan ne mbir mi lu ñu préparé la soo xoolee film bi mbuus bi avant ñuy wàcce mbuus bi la waa ji commencé filmer. moom lan moo ko wax ne mbuus bii muy wàccee ay ko ay ay cocktail molotov moo ci nekk caaxaan mënul weesu loolu léegi nag ci loolu ñoom saisir nañ ki nga xamante ne moom mooy euh, commissaire commissariat bu point E ak ki nga xamante ne moom mooy DIC ñeneen dugal nañ plainte contre X léegi plainte contre X boobu nag ñi nga xamante ne ñoom lañ si visé mooy ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo jiite Pastef ICAD ki si njëkk muy Diamé fay muy euh, le coordonnateur Pastef ICAD Malick Dieng nekk chargé de la massification Pastef ICAD Ousmane Sonko junior nekk <clears throat> euh, coordonnateur JPS département de Mbour nekk étudiant en fac droit cha euh, Jamila Chanceuse nekk euh, chargé de la communication Pastef ICAT Moustapha Seno nekk coordonnateur Pastef fac droit Bara Bara Diaw nekk patriote engagé Dacosta nekk patriote bu ñëpp xam université mu nekk patriote bu engagé Adams nekk patriote bu engagé ah ak ñeneen ñoo xamante ne. tudd nañ leen Bakary Sagna Bakary Bass muy Bakary Sakho nekk nekk étudiant en même temps nekk coordinateur GPS département de Guédiawaye ñii nii ñëpp dañ leen a bëgg a jël daal di leen jàpp parce que nee na ñii ñoom ñooy plainte contre X boobu ñuy dégg kon nag ñuy ñuy ñuy jël euh, di di wax opinion national international yëpp que ne actuellement étudiants yi ñu ngi danger te lenn waralu ko lu dul cuune ak ñàkk mën-mën bi nga xamante ne tey DG moom la moom la bëgg a diriger ICAT di recruter ay nervi di di dugal ñoo xamante ne duñ ay étudiants amatuñ inscription nekk biir université loge fa ñu leen di dundal di leen di leen jox ay ay ay armes ngir ñuy attaquer étudiants pacifica bi loolu yëpp gis nañ ko te lu yàggul dara Pape Abdoulaye Touré activist nekk euh, bokk Sénégal notre priorité génne nañ ko université parce que nee nañ nekkatu étudiant. te moment boobu ñoo ngi loger ay étudiants ay étu ay ñoo xamante ne duñ ay étudiants ay nervi ñu dugg biir ICAT di di di intimider étudiants yi di leen def naka suñu noonu loolu noonu yëpp nag kan moo ko waral muy ñi mën a wax muy Esteban Damsène nga xamante ne fi mu toll nee na moom yee léegi Macky Sall la àndal euh, ba sax moom lay politigal te nee na actuellement. pour Macky Sall jox ko li ñuy tuddee maire national muy mouvement des élèves étudiants républicains faaw mu daal di wane dooleem biir université te moment boobu xam nañ ne moom université suñ doon wax ne kii maanaam màggat na fa moom màggat université ba waroon naa génn université Kabakuru si jëm boppam pareil. ci ñun la bokk parce que moom mooy chef de sécurité bi yëg ñun magu yi nga xamante ne koy def di woo booy pacificat yi leen menacé naan leen yéen yow ak kii ak kii seen tur dinaa ko jox commissariat point E loolu yëg nañ ko Abdoulaye Cissé pareil ci la bokk ñoom ñëpp nag ki leen jiite mooy Maguette Sène ñoo ci complot bu métti métti ngir daaneel étudiants yooyu noonu daal leen di lan yóbbu ne ñii dañ leen a jàpp ay terroristes lañ dañ leen di toppee li nga xamante ne mooy association des malfaiteurs te xam nañ ne loolu ay la ñu yi préparé ci loolu loolu préparé bu baax communication bi na jàll ñu xam ne ñoom li ñuy laaj nii ñun yëg nañ ko te du mës a jàll lépp luñ teg balaa ngoon ñun dinañ ko yëg parce que ni mu amee ay ay défaillants ay ay ay corrompus seen biir ñoom la amee ñoo xamante ne seen biir li ñuy def en Russie te lépp luñ teg ñun ñooñu lañ ko yëgal di jaajëfal lu baax seen mbokk la seen frère camarade Ousmane Lo Marseille loolu amul dara ñu siy présenté kon jaa ngeen jëf mbokk yi.